une bu nga xamante ni wala bokk benn interpellation bu leen interpellé yéen ñaar ñëpp docteur lan ngay wax par rapport ak Kajoor. Euh, vous savez je respecte le l'analyse de de Kader euh, dans les principes. Kajoor voilà dans les principes mais euh, wax ne que opposition bi xeexul moi je pense que mënuma ci d'accord. combat farouche. mais combat quand même combat quand même am na. en ce qui concerne le président Déthié Fall je pense que en, en le président Déthié Fall je que Sénégalais yi ils sont témoins ils sont témoins des combats qu'il a menés euh, dans ce pays pour le respect des droits euh, mais également pour le respect des principes démocratiques. de presse. Euh, non parce que vous savez très bien que le président Déthié Fall il est présent ci manifestation yëpp bu amee manifestation day day teew. lépp lu am day taxaw gazé nañ ko fi jàpp nañ ko fi condamné nañ ko sax ci ay ay ay manifestations euh, qu'il disait euh, interdites te ñëpp xam nañ ne manifestation au Sénégal euh, kenn waru ko interdire le président Déthié Fall est en première ligne de tous les combats combats yi ngay wax ni il est en première ligne de tous les combats le problème c'est pas l'opposition mais le problème c'est c'est le régime du opposition moo war a changer règle yi parce que du opposition mooy gérer euh, le pays. mais les règles sont établies. les règles sont établies. il faut une opposition forte euh, pour faire respecter ces règles-là. l'opposition a été toujours forte. en tout cas le président Déthié Fall a été en première ligne de tous les combats loolu mën nañ ko reconnaître euh, mën naa la jox exemple. combat combat politique c'est l'engagement. c'est la présence au niveau de tous les combats loolu le président Déthié Fall l'a assuré loolu Sénégalais yi mën nañ ko témoigner bu ñu fi bëggee salfaañe dem euh, droit euh, d'un opposant gis ngeen la position du président Déthié Fall il a toujours été constant il a été parmi les premiers boo doon lim ñaari euh, opposants yu yu xeex pour le respect des droit de Ousmane Sonko tey c'est le boy lim premier c'est le président Déthié Fall loolu mën nañ ko sénégalais mun nañ ko témoigner dafa am nag xeex yoo xam ne boo xeex boo xam boo koy def da koy teg ci yoon bi ñu fi wootee euh, dialogue parce que en réalité question yi ngay wax nii ci dialogue lañ ko mën a régler dialogue opposition pouvoir. pas mais kan moo tëj porte yi. pas forcément ba si ba si ba si ba si ci dialogue lañ ko mun a régler. toute l'opposition